mbokki jullit yi ak fu ngeen mën a nekk ci àdduna ñu ngi leen di nuyu nuyub lislaam waaye xiit di leen ndokkeel ci shahru ramadaanul mubaarak di ñaan yàlla yàlla na ñu nangul sunu koor ak mboolem jëf joo xam ne ñu ngi koy jëf ci biir weeru koor yàlla na ñu ko nangul tabaarakallahu noonu lañuy nuyoo sunu mbokk yi nekk ci site bu am solo bi te di ko taxawee ca gën caa rafet ci taxawin di leen dokkeel hit waaye di leen ñaanal yàlla taxaw leen di leen fajal seeni aajo sàmm leen sàmmal leen seen njaboot tabaarakallaahu da ngeen naa nekk ci lu am solo muy mécc moo xam ne mat na di bàyyi xel ndax mécc la moo xam ne mu barke la ndax alquran dafa tudd ne wala xaw la lahumul la laallahum yatazakkaruun te mécc moom mécc mii ngeen di def génnu ci kon mécc mu am solo la ba tax na nañ ko di bàyyi xel jaamu yàlla la e tabaarakallaahu ñu fas yéene àndaat ak ci seen émission yi am solo yi ñuy taxawee di azikra di ko def ci biir weeru koor wi tey nag ñu ñëw fas yéene àndaat ak yéen ci fadailu shahru ramadan ci maanaam lu aju ci lu weeru koor mbokk yi dañ ne ummatu muhammad sallallahu alayhi wa ñoom la yàlla jagleel weeru koor ganaaw bi mu tànnalee boppam rajab tànnal seydina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam shahbaan ñin nag mu tànnal ñu ramadaan loolu yépp nag mbokk ndax gaa yi dañuy wax mu ne gaa yi mooy góor yàlla yi dañuy wax ne yàlla sunu borom bi mu waxee yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne ko wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda sa borom dana la jox ba keroog ngay gërëm waaw bi mu ko waxee loolu nee nañ dafa mel ni dafa dafa wax lu ëpp ci waxin waaw yonent bi nag moom comme que nabiyu rahma la waaw yërmande la fees dell ne ko nag mënumaa gërëm lu mooy ba sama jaam ñi sama xeet ñoom ñépp ëllëg mën ak ñoom ñu duggandoor biir aljana léegi nag yàlla li mu waxoon wala sawfa yu'tika rabbuka fatardaa loolu nag moom lay dabaatal moo tax mu leen di kereyal yenn yenn promotion yi léegoo la nga dégg ñi ne weer sàngam boo ci wooree nangam mu kafaaraal la wala boo ci wooree benn fan mu kafaaraal la ñaari at juma ak juma day kafaara diggante semaine bi loo ci mën def naka noonu noonu la ñëwee ba weeru koor yonent bi ne weeru koor ak weeru loo ci def diggante bi soo xooree weeru koor bi ba keroog beneen bi di ñëwaat yàlla mën na la koo jéggal si mbaaxam kon moo tax yàlla dañuy xéwalee léegoo léeg yenn événement yu am solo yii lu ci mel ni weeru koor nga xam ne boo poussé tuuti rek jot guddi googu ñaan laylatul qadri nga xam ne xayru ne alfi kon yàlla sunu borom li mu wax yonent bu foofu sallallahu alayhi wa ak ci mbaaxam moo tax nag mu ñuy defal occasion yu mel nii ñu ngi ci weeru koor weeru koor nag gannaaw bañ xamee ñi ñëpp ne farata la waaye dafa làmbu ay ngëneel bokk na ci ngëneel yooyu yàlla sunu borom daf na yonent bi alayhi salaatu wasalaam mboolem jaamu yàlla buy jàmbir def moom la concerné moom la ñeel ba mu des woor waaw ba mu des woor ne na ndax woor moom maa ko moom sama yëfa waaw maa koy fay moo ko jëlal ko moo tax lépp looy jëf yow jaam bi ëllëg sa diggante ak sa moroom jaam bu dee àq doxoon na ci yàlla dana jël si sa jëf yi nga jëf di ko ci fay mais pas koor koor bokk ci waaw koor moom du ci bokk ndax yàlla moo ne koor sama yëfa moo tax mu defal la ci ngëneel yëpp ngëneel yu bëree bëri yoo xam ne laa tuaddu wala tusa maanaam li mu ko dafay jafe waaw nee na kullu amal na aadama lahu ila sawm fa innahu lii wa ana ajzi bihi waaw lépp lu dooma aadama di jëf moo moo ko moom ba mu des koor mu ne koor nag man maa ko moom moo tax maa koy fay kon yàlla nañ bokk ci ñu yàlla di faylante ñun ëllëg ci barke weeru koor bi waaye bokk na ci ngëneelu weeru koor mbokk yi tax ay ahadis yu bari wàcc si mooy ne yàlla sunu borom bëgg na xeetu yonent bi ba ne weeru koor su xasee jot day ubbi buntu aljane yi waaye tëj buntu safara yi ba nga xam ne képp koo xamante ni yow génn nga ci àdduna di nga am sens ndax aljane nga jëm waaw ah, ndax day fekk booba yàlla tijji li nga xam ne mooy buntu aljane yi ah, loolu nag mën na la xaw a jaxase ne waaw ki nga xam ne mooy moom def lu ñaaw lañ ko xamee mu dee ci bëccëgu weeru koor waaye nag yàlla ci mbaaxam ak coobarem lu ko neex lay def waaw yàlla loolu xoolu xool xoolu ko am na ñu ngay xool yow doomu aadama bi loolu yàlla xoolu ko waaw kon bokk na ci ngëneelu weeru koor mooy yàlla nee na su weeru koor xasee tàmbali guddi gu njëkk gi yàlla dina diggal malaaka bi nga xam ne moo moo nekk aljana di ko garde ne ko ubbil bunt yi nga xam ne mooy buntu aljana yi waaye it noonu lay waxee ki nga xam ne mooy garde safara ne ko tëjal buntu safara yi ba nga xam ne ku ci dee tey jullit ëllëg yàlla mën na laa dugal aljana waaye it wax nañ ci ay ahadis yu bari wàcc na di wax ci ngëneelu weer yu ba ne weeru koor su xasee taxaw seytaane ak mboolem jinne yi nga xam dañuy féeteerlu yàlla sama borom day da leen di tëj waaw da leen di tëj loolu nag bu ñu ko waxee tey ak fi jamono toll nit ñi ni ñuy wooree ak mbon géeg nim mu ni mu tasaaroo ba nga xam ne yow da ngay mel ni sax nekkatoo ci weeru koor dina la xaw a jaaxal waaw waaw rek am na benn mbokk bu ñu dajeeg moo koy laaj ne ma waa Oustaz du dangeen di wax ne ma ne ko déet yenentu bee wax sallallahu alayhi wa sallam jëlee ci boroom ne weeru koor su xasee teru yàlla day tëj seytaane yi jéng leen ak mbooleem ñu mel ni ñoom tey fitir mu ne loolu ma ne ko addis la mu ne waa léegi nag nit ñi nag ñoom niñ mel weeru koor bu ñëwee tew daanaka ñu ci changé du bëri mooy yàlla gi na meloon lay mel waaw ma ne ko waaw lenn rek la dañ leen a seytaane la ñuy tëj moom la ñuy prisonnier waaye yow su fekkee yow yaa dox ba ci moom nga jébal ko sa bopp nag ah kon boobaa du sotti lam doon def lay continuer di def rek kon yëf yi foofu la yow yaay topp sa bakkat waaw yow yaa topp sa bakkat bakkat nag boo ko xasee topp amul weeru ko rek lu dul weeru ko amul barab bu sell ak bu la di yépp a ci am dalay lay da yóbbu rek ngay dem waaw da yóbbu rek ngay dem ba boo amul ndimbal rek dana la sànk kon yëf yi loolu la waaye mbokk yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa wax hadiis bu am solo ni al sawmu al sawmu junnatun moom la ñuy tëjee incha allah al sawmu junnatun nee na woor benn kii la pakk li nga xam ne boo koy téyee moo lay défendre comme tey boo xoolee léegoo ci armée bi walla ci police yi boo xew-xew amee buñ jénnee li ñuy téye noonu di ko défendre bu ñu leen di sànni loolu lañuy ñuy ak al junna al junna yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na asawmu junnatun waaw koor noonu la mel ci yow jàmm bi ak noon yi la wër bëgg laa yàq muy bànneex ak seytaane ak bakkan ak yooyu yëpp waaye boo ko càmbaree xadis boobu da ngay gis ne doomu aadama bi même bu dul yooyu sax am na tey ay virus yi nga xam ne ñu ngi ci yaramam bi di dox saa su nekk te loolu lu koy waral mooy lekk gi léegoo léeg ak naan gi ñoo koy waral mu judd ci biir yaramu doomu aadama bi léegi yooyu noonu tey day dem ba nekk ay virus yoo xamante ni dina ko créer ay feebar léegi nag su fekkee yow yaa ngi woor war googu noonu dana dem ba di la protéger ci yenn jàngoro yooyu dafa am benn médecin américain la dañoo def benn rapport en 2019 di ci wax njëriñ yu nekk ci weeru koor fekk avant loolu ñoom dañ noon yàlla lu tax mu farataal weeru koor ci jullit yi pour xañ leen seen liberté rek waaw ak déngu ko xëñ leen lekk ak naan ak yee ci aju waaw pour bëgg a kii l'islam daal critiquer l'islam mais médecins yi bi ñu defee seen gëstu ci koor nan lay def yaramu doomu aadama rapport bi ñu ci mujjee jénnee dem nañ ba ne gis nga woor amul benn médicament bu mel ni moom ci may la santé gu mat sëkk ak defar sa xol protéger ko ci cancer yi ngay dégg ya ci aju moom weeru koor amul dara dara lu mel ni moom ci maanaam muccal nit ki ci xeetu jàngoro yu bon yooyu nga xam ne comme dal néew na ba nga mucce kon loolu yëpp da ngay gis ne addis bi yonent bi alayhi salaatu waxoon dem nañ ba science ñëw trouvé ko mooy njëriñ yi nekk ci koor yëpp tiyaaba ju rek taxut waaye yar sa bakkan bi rek taxut waaye wér gim lay jox loolu rek war naa tax yow nga gën a góor góorlu fonk ko di woor kon mbokk nañ nañ ko xamee noonu te góor góorlu ci weer wi bari na ngëneel lool lool lool ba nga xamante ni boo toogee fii di ko wax danga wax ba sonn waaye du jeex kon dangay fexe nag profito rek yi nga ci mën a def nga def ko mënoo dajal yépp waaye nag ñàkk mën a dajal yépp nag lu tax it nga ne damay toog ah olof danaan lawtanal njëriñ yépp ku ko bëgg a laawerti des fa ah, kon nanga xool yi nga xam ne jàngale nañ ci sunna ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam noonu la daan dundee ci biir weeru koor yi nga fexe yow góorgóorlu di ko rey ci loolu di ko def su ko defee incha allah danga mën a jëriñu ci weeru koor yi li ci nekk ci ngëneel waaye it sa yaram dana ci defaroo ndax weeru koor wax naa la léegi ne du ne maanaam tiyaaba kese lañ ci wut waaye dana la fàggul wér gu yaram goo xamante ni mënoo koo amee leneen lu ci lu dul bu ko defee kon mbokk yi ñu tëjee foofu ba beneen yoon incha allahu taala ñu fas yéene a continuer ak yéen ci fi ñu taxaw ci ngëneeli koor incha allahu taala in uridu ila al islaaha mastataatu wasalaamu aleykum wa rahmatullahi